asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yu Senfootball TV nuyu naa leen bu baax ziar leen di am mbégte saa su ne defal leen vidéo mbokk internet vidéo bi ma koy dooree si Gana Gueye suñu milieu terrain bi ma tuddee que en danger franchement euh, gisaat nañu liste wala feuille group bi xamante ne euh, kii di Galtier antenne président jox na ko kii di Gana Gueye bokk si dèjà loolu ça di dire que bokkatul carrément carrément léegi c'est xam nga donc c'est fini quoi c'est fini comme li ñu def écart dañ def je pense tey saa wax ne si sax conférence de presse démb Galtier comme quoi yeneen joueurs yi nañ jéem a trouver yeneen équipe ndax comme moom boo bokk si ay ay plan bokkoo si maintenant c'est à lui nag mu dem chance que boo xoolee Renato Sanches dañ koy jëndee moom moo tax ñu jëndee ko xam nga c'est tel non c'est emplacement ak joueur Inter bi xam yàgg nañ ko laa Skriniar euh, yàlla joueur de bi xamante ne ñoo ngi discuter ak moom donc y a tout ça te dire que ne su ay milieu terrain lañu ça veut dire que si euh, plan yu Paris Saint-Germain lenn la moo ko nar a mu toog Paris Saint-Germain comme Kurzawa un an de contrat yi temps bu ñëwee encaissé xaalisam mais si toutefois tu bëgg nekk benn candidat bu doy war si coupe du monde bi de il faut mu dem mu compétitif changer de gis nañu instant bi ko Everton mu toog Everton lijjanti na même milieu terrain donc loolu dèjà ñëpp gis nañ ko Everton nag ni laaj beneen mu ngi laajaat beneen milieu terrain Amadou Onana la njëkk jënd mu nekkoon li nekk beneen joueur boo mën a jouer Sénégal Cameroun ak Belgique nekk Belgique kooku la ñu jëndi maa ngi leen ñu ngi laaj yeneen joueurs yoo xam ne ay milieu terrain donc euh, moom refusé na fi aussi euh, offre de kii de Nottingham Forest de trois ans mu bañ ko carrément alors que premier yi xam ne championnat bi maîtrise ni ko war na mën a jouer Galatasaray laaj ko aussi tamit Galatasaray mu ko laajee aussi dafa bañ donc euh, kii di Gana Gueye il en danger c'est à lui nag moom li ko dimbali lu bëri bëri bëri xam nga mooy bokk na si kii bi ko soxla bëri na loolu moom leer na moom moom ñàkkul ay sollicitation xaw ma xam moo lamb waaye Doudou Gana Gueye quoi parce que def na ay match de référence du côté de Paris Saint-Germain mbokk yi bu ma jógee si si Gana Gueye damay wax si xaritam Cheikhou Kouyaté Cheikhou Kouyaté gars yi nañu devrait s'engager à Nottingham Forest euh, d'accord na ak ñoom ci lépp dont ñu ngi ko doon dégg du côté de du côté de xam nga dégg aussi tamit du côté de Everton bëri na ay équipe yu ñu ko dégg ah dégg nañu ko tamit un an de contrat la ko waa Crystal Palace bëggoon defaraat xam nga deux ans la comme Ramos ni mu ko bëggee woon fële rek Real Madrid ñu mujj ko bàyyi mu dem yokk ko contrat bi et tout xam nga yenn âge bi yi duñu bëgg jël somme yenn yi euh, def ko ceew en tout cas Cheikh Kouyaté bu man bu demee foofu dem na équipe bu mag équipe bu emblématique équipe bu jël Ligue des champions ñaari yoon donc Nottingham Forest du lu ndaw donc am na yeneen sollicita sollicitation Monaco sax soxla woon ne kii di suñu milieu terrain bi Monaco

carrément génne na am nañu attaquant bu bees d'accord na moom ci mais moom euh, Mbaye Niang moom mujjee avis mom de préférence Ligue 1 la bëgg tok quoi Ligue 1 française du coup amono na Auxerre amoon na Ajaccio yaa Ajaccio ba nii nii dañoo yokk cadence bi accélérer le dossier mais buñ ci sukkandikoo si taskatu xibaar bi ñuy wax l'équipe nek France daf ñu xamal ne Mbaye direction fii lay gën a ndóol euh, Auxerre xam do ko Auxerre aussi mom la bëgg jël Mbaye batay mom tey moom bon euh, c'est c'est un gassi quoi franchement waroon na niveau bi mais ak yu yenn de carrière comportement bi quoi de vie bi y a beaucoup de choses yu ay éléments yu important football moderne bii football moderne bi talent rek pour la différence y a le talent mais y a le travail à côté comme Christian ni donc xamal a donc samedi sax samedi c'est demain donc mi voilà ñeen ko Sénégal mais il faut que mu performer comme numéro ma wax si yeneen ñaari joueurs yi ma njëkk ko wax xam donc moom aussi il a besoin du temps de jeu wane ba boppam bu baax baax qui euh, di suñu coach bi mën ko bàyyi xel bu ko defee bu ñuy groupe bi maanaam bu ñu woowee ñu bëri pourquoi pas pourquoi pas rek lañu si mën a teg ndax nii c'est compliqué woo ben benn waay boo xamante ne dina def une prestation en club donc Auxerre yéeg na première division d'ailleurs ñoo tolloo Saint-Étienne donc foofu espérons que bu fa demee dina mën exprimer talent